wakkiluna man yonent alayhi ci yàlla ni kursi yu nag ah mooy aras am ñu ne déedéet kursi yu bokkul ak aras aras bokkul ak kursi yu aras lu rëy la loo xam ne dafa peeg mboolem mi maxlooxaat yi mboolem li yàlla bind aras daf koy wër li wër li mboolem li yàlla bind mooy aras kursi yu nag mooy soo gën a néew jëm moom kursi yu mooy ki ko gën a néew jëmm ceeraasiyo bi nag wax na ne waxaataane aayataane ñi ñaari laaya ñoom dey mucc ngi ci de min kulli makruhin ci lépp lu la naqari soloos na ne man xara ahumaa ku leen jàng ñaari laay juróom-ñaari yoon suba juróom-ñaari yoon ngoon dana mucc ci mboolem lu ko naqari ba mu des dee bis bi nga waree dee yàlla da la koy fàttaloo doo ko jàng juróom-ñaari yoon suba juróom-ñaari yoon ngoon waaw waaw waaw defee nag ah nee na bu fekkente ni boo demee ci am na feneen fu ko Ibnu Abbas wax nee na dolli na ci ni boo amee ku feebar nga digal ko bis boo xëyee wutub kaas def ci ndox jàng la xat jaakum ba mu jeex baam ko fa in tawalaw ba saar wi jeex juróom-ñaari yoon mu tëfli ko ci naan ko du dee ca feebar boobu waaw xanaa dafa waaye du dee ci boobu liif laam raa allahu alam bi muraad bi muraadi xawma lu mu xawma lu ci yàlla namm waaye tilka moom moomu daal ayatul kitaabi moom liif laam raa mooy kiimaani téere bi de alxakiim ayatul kitaabi alxakiim ba yaa tëg dëgg akaana ndax dafay nekk ajaban kiimaan li naa si ñeel nit ñi nit ñi dañuy am kiimaan am boo xamee ni man yàlla aw xëy naa wax yu nanu ilaa rajulin ci benn waaye bu bokk ci ñoom minum ci ñoom an dama wax ne muy ani mu fasar maanaama day jiitu jumla ba an dama wax ni an sir waareel ragal lool naasa yéefari wa basiri bégalal la si na ña nga xam ni amono gëm nañu ne leen loo leen di bégale wa basiri la si na amono ne leen ana qaddama siddiqin inda rabbihim lahum lu neex la qaddama siddiqin jiitub dëgg wiyub dëgg ca ba ngeen daataan judd inda rabbihim nekk na fa seen borom lahum ñeel leen moo di tarbiyatul xadim yar nañ la ca judd woo yar nañ la ca judd woo ana qaddama siddiqin jiitu dëgg sa maam wala sa maamaat wala sa baay nga nekk ci deretam muy jàng alxuraan nga nekk ci deretam muy julli nga nekk ci deretam muy sikkir nga nekk ci deretam muy def yiw yaa nga ca moom ngay yaru ci loolu ba judd du bokk ak nga nekk ci deretam muy naan loolu nga nekk ci deretam muy def loolu nga nekk ci deretam muy def yooyu ba nga judd nag du ngeen bokk donte yéen a bokk matière doomu aadama waaw usine bii defar potu sabur ak bii defar potu ndaa benn matière bi la waaye pot ba ca bitig ba set wecc ma yeggale ma yeggale pot ba ca bitig ba set wecc bool ba ca bitig ba set wecc waaye bool lañ ko defare wala kala yëpp potu ndaa lañ ko defare waaye waaye koo ci defee lekk boo ci defoon lu dul lekk yeneen ba noppi raxas ko moom set delloo ci bitig ba koo ci defee lekk da koy lekk ndax bokk yu set yaa tax waaye bot pot ba bu setee wecc it te nga xam ne melaw potu sambur lañ ko def koo ca defal lekk du ko lekk bokk yu taq yaa tax ah waaw lan sañoo ko bañ a jëfee mu ngi ci kanam li tax nga di ko jëfee mu ngi ci kanam il faut nga jëfe ko dégg ñu tuuti rek ma arrêté te yegguma ci àndal bi dafay déglu tuuti ana xaddama siddaxin inde rabbihim fas seen borom nga déglu tuuti xaaral wax na kaafiroona yéefare inaasa ji alxuraan la sihirun jabar la mubirun ji di bir inna rabbakum naka seen borom laahu yàlla la si mooy ka nga xam ni xalaqa bind na samaawaati asamaan ya wala lar suufe fi sittati ayaamin ci mattalab juróom benn fan sama topp nag istawa nag mu nopp te kaw ko gën a kawe rek wante yàlla amul place alal arsi ci kaw aras yu daddiru muy settamital amra mbir ya baynal xalaayiqi maa min safiin béet kuy ram ilaa min baadis nii ndaray ci gannaawam ndigalam dégg nga saarikum koo xure seen def loolu mooy kan illaahu kooku mooy allah rabbukum moo leen yar faxabuduuhu jaamu leen ko afalaa tasakkaroona mënu leen teree waaru waaw jot na nee na marjiukum seen delluwaay lay jëm na ci yàlla jàmmeen mboole waxda laayu muy baalu yàlla àqam te dëgg nee na inna woo ni ki moom yàlla yebdawu moo sos xalqa bind ba su ma yidoo moo ko delloo léegi seen ngir na fay moo tax mu delloo ko lësina mooy ñi nga xam ne nag nee na lësina ñi nga xam ne nag amanu gëm nañu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëm yàlla te gëm ga sell wa amelo ñu jëfee saalihaati bil qisti ci dugub du ñu bokk ak lësina ñi nga xam ne ñee nga xam ni ñoom la yàlla fay léegi gisee lësina mooy ñi nga xam ne amano wa amilu saalihaati bil qisti ñoom la mu jeex wa lësina ñi nga xam ne kafaro yéefar lañ law ñeel na leen saraabun ak naan min animin wa asaabun ak mbugal alimun gu metti damaa kaano ci lañ nekkoon yakfiruuna di ko weddi kooku moom yàlla la si mooy ka nga xam ne jaala def na samsa jant ba wal xamara moo def weer wa nooran moo tax bu nee jant ne diyaa an bu dee weer na noor diyaawu nooru saati la dafa leer ci bokkam nooran nag dafa leer ci leeru jàmbur dafa mel na bët ci leeru jàmbur lay gis wa qaddarahu waaye bët ci boppam du gis amul nooru saati waaw boo yebalee silmaxaak njàccaar ci néegu lëndëm kenn bañ koo taal nga yónnee leen dara ñëppay làmbatu bu néeg ba tàkkee nag ki nga xam ne bëtam baax na per ba yàquwul muy gis nag ci leeru jàmbur man naa sira ay wàccuwaay nit ak juróom-ñett li taalamoo ngir ngeen xam ni adada sinin li muy at yi wala isaaba ba yàlla defoon ñaari jant benn guddi benn bëccëg kenn du xàmmee at yi ak réglé yi kenn du mën a réglé illaa bi làq ndërëg ci dëgg yooyu la yàlla faram fàcce na ayati kiimaan yi la xamin ñeel aw nit yàlla moona yàlla nee na ni laa yàlla nekk kiimaan fi ixtilaafi loolu mi ngi ci wute guddi wa naa rek bëccëg wa maa xalaqa ak lépp la nga xam ne xalaqa bind na ko laaw buur yàlla fi samaawaati ci asamaan ci jant ak weer ak biddiw ak malaayika yi wa fil ardi ak li bind ci suuf ci ay dund ak i doj ak i géej ak ndox muy daw ak i garab lépp laayaatin waxoon nan ko dalaalaatin li xawmin ñeel aw nit ñi nga xam ni ñoom yettaqoona ragal nañu yàlla ina les ne ni ki gaa ñi nga xam ne laa yarjoona yaa laa yaa ko yaakaarun li xaanaa dajeeg moom ci dekki war a doo gërëm nañu belaayati ci adduna yi kese duniyaa ka di gaaw a jeex wat ma anoo jàng nañu jëm ci adduna wala si ne mooy ñi nga xam ni xaafiloona way sàggan lañ hum ñoom xaafiloona way sàggan lañ muy mubtada xabar ana ayatina bàyyi bi suñuy tegtal ulayka ñooñaay day day maxwayam seen saxwaay naaru sawara bi maa kaanoo ci lépp la ñu nekkoon yekk si ba nga di ci fàggu ci mooy yàlla sëñ ngi yéen nag nga déglu foofu la tax gaaya duñ ko mën a def na loom xaddama siddixin el foo ci yoon wala ñuy jaar kott kott yollu yollu déglu fii nag indil la fii nag ni ki gaaña nga xam ne nag amanoo gën nañu bu yàgg te bañ daatam gudd ki xaddama siddiqan waa mi loo ñu jëfe bu yàgg salaati ay yiw yahdihim dana leen jubal rabbum seen borom bi imaanihim ci seen gëm gu yàgg ga dafa la déggoo yahdihim rabbuhum bi imaanihim aha feeñ na ci àdduna rek ki bàyyam dem service ba ami garaat mu dem soldaar bokkul ak ki nga xam ne mësul am ku dem soldaar bokkuñu nu ñuy demee bokkuñu ay garaat bokkuñu ay garaat al àq na suriyatin waaw bi imaan yi mu noonu foofu nga koy déggee école boobu. ma ne école boobu ñuy dem sax boo tee dem sa bàyyi bi sànq moom la muy toll.
mu roog yahdihim rabbuhum bi imaanihim bi an yajala lahum nooran yahtaduuna da leen di defal leer bu ñuy jaar ba yowmal xiyaam du ñu mën a jàdd yoon wi kooku mooy xaddama siddiqin fa tabaarakallahu tajriim lay daw la maaru ndox ma min taxtihim te suufi àjjana yi fi jannaati nahiim bu ñu demee ba àjjana nag yoon wa jeex daxwaahum fiiha subhaanaka allahuma wa tahiyatuhum fiiha salaamun wa axiru daxwaahum an alhamdulilahi rabbil alamin ñoom ñu nekk àjjana wax nañ ci wax yu bari ñu ni daxwaahum seen woote seen ñaan fiiha ci àjjana lu ñu soxla rek numéro ba numéro téléphone bi nga wootee wala boo wootee donte gëmmentu gu la romb la sax nga soxla ko da nga naan rek subhanaka allahumma rek mu daal di daanu si rek ñor xomb ci palaat yi boo bëggee ndox mu sedd nga ni subhanaka allahumma boo soxlaa dara nga ni subhanaka allahumma subhanaka allahumma rek waaw moo tax mag ñu ni boo amee soxla nga ñaan ko ñaar juróom-ñaar fukki yoon wala juróom-ñaari téeméeri yoon wala juróom-ñaari junni yoon aha subhanaka allahumma subhanaka allahumma subhanaka allahumma waaw subhanaka allahumma rek boo ñaanee ba pare nag li ngay fermee ñaan gi nag li nga koy tëjee nag mooy alhamdulilahi rabbil alamin moom itam juróom-ñaari yoon wala juróom-ñaar fukk subhanaka allahumma ba sa ñaan jeex nga fermee ko alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wallahi ngir li jaamu laa ilaha illallah ngir li ñaan alhamdulillah ngir li jaamu laa ilaha illallah afdalul ibada laa ilaha illallah te ibnu kasir ba indi na ko waaye nag wa aflalu duhaa yi alhamdulillah moo tax mag ñëpp ci alhamdulillah la ñuy mujj mag ñëpp mag ñëpp ci la ñuy mujj alhamdulillah rek rabbil alamin ji nag dañ ko ciy boole ndax boo yemee ci alhamdulilah yi rek bu baree day lekk xol alhamdulilah nee na subhanaka allahuma tudd naa sag sell allahuma yow buur bi ibnu abbas nee na allahuma kese mi ngi para santé juróom-ñeent juróom-ñeent fukki tur yàlla ak juróom-ñeent wax na ko ci sa wax na ko ci téere bu ñuy wax itqaan suyo téyo ko liggéey muy présenté juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay tur yàlla allahuma moo tax mag ñi fu ci bari dañ koy rocci yaa man asaral jamil mag ñi bu ñu la koy jàngal dañuy rocci allahuma ci yaa man asaral jamil rek lañ lay tàmbaleel isbul bahari yaa ali yaa asim dañuy rocci allahuma ci ah am day mbir la wàcc mbir la xanaa déggoo la Cheikh Omar waxoon ca Baxdaad Baxdaad ba nga xam ne dañoo rey dañoo rey fóore yooyu ba deret ja deret ja taa ca mbedd ya ba nga xam ne deret ja dafay labal da da nga ciy xuus te lépp di dereti fóore te te booba dañu contre ihyaaw uloomi diin Cheikh Umar ne bu ñu jàngoon benn as hisbul bëri rek loolu du fa xew du fa mën a xew isbul bëri boobu bokkul ak suñu bos bu ñu jàngoon benn isbul bahri rek loola du fa xew ñoom seen isbul bëri petal la bu ñu sox ñun suñu isbul bëri petal gu amul soxla amul bal petal gu amul bal moo ko yeta yem aha aha loolu moo tax wata yëpp mu seen nuyoo ca àjjana wala ñu ni nuyu ba leen yàlla di nuyu wala seen nuyoon te ñoom ci seen bopp ca àjjana fiihaa ca àjjana lan la ñuy nuyoo salaamun salaamun jàmm sa jàmm sa salaamun jàmm sa jàmm sa yaa salaamu salim salim yaa salaamu salim salim yaa salaamu salim salim yaa salaamu salim salim jamono lii la mujj wax dafa taxawoon waaw yaa salaamu salim salim lii la mujj wax yaa salaamu salim salim rek daal na nen
xam tool bi ko wax wa axiru dahweewum seen mujjub ñaan seen mujjub woote ah waxi waa àjjana nag amul limite du yem wa axiru dahweewum ji mu wax taxul mu yem ñuy wax ba mu yàgg wax ja jeex déedéet lim ci jublu rek kinnaaya la seen woote daal mooy an dama wax ni alhamdulilahi rabbil alamina place bu ñu toog loolu la ñuy mujj a wax bu ñu waxee subhanaka allahuma ba seen aajo faju ñu ne alhamdulilahi rabbil alamina mooy korosé téléphone ba alhamdulilahi rabbil alamina ñu daal di coupé walaw yu ajilu doonte gaawe woon na laaw bur yàlla li naa si ñeen nit ñi sarra mu gaaw leen a indil aw xay ka istihjaalihim mu dindi keef ga istihjaalan ka nim leen di gaaw toole nim leen di gaawe indile bil xayri ci yiw bu loolu amoon la xullee kon moos ñu atte ajalum seen dig ilayhim jëm ci ñoom ndax doomu aadama su bëggee dara amu ko sax muy bëgg a xaru wala mu naan yàlla naa dee bu ko yàlla doon nangu ni mu doon nangoo yiw kon ñu alaku mooy wala yu hajjilul naa naa si sarra istijaalahum bil xayri la qudi ilayhim ajaluhum kon boo ne yàlla naa dee rek yàlla rey la wante yàlla du la ko jàppe day xam ne rek da ngaa xamul rek ah boo dee wut dara di ko romb ba mu yàgg mu ne gisee wet gisoo ko nga gis ko man yàlla naa dee rek ah fa nasaru nee na na wacc la si nañu nga xam ni laa yarjoona yaakaaruñu liqaa liqaa anaa yàlla nee na ñu yaakaaru ne dañuy dajeeg nun dañ leen di bàyyi rek yax noona ñuy déng déng fi tox yaa neen ci seen ak daw isaa masa ndem laal na duru lor ga al insaana nit isaa masa ndem laal na duru ñàkkum nawet isaa masa ndem laal na duru ñàkk xaalis isaa masa ndem laal na duru yaram wu ñàkk wér al insaana nit daxaanaa yàlla nee na nun rek lay daal di woo lijjan bi wér gëm tëdde ma nga nuy woo aw xaayiran bu toogee ma nga nuy woo aw xaayiman bu taxawee ma nga nuy woo falamaa kasaf naa boo xamee ni bind nañu durrahoo doram ga feebaram ba ñàkkam ga xam mu bàyyi ko fa mara mu daal di goŋeet goŋeeti mara mu daal di lim sëngu nag daal di daal di lemu loos wan na abi jaani bi hi waaw daal di goŋeet goŋeeti nag mara kan lam ya doona mel na du moom moonu doon woo ilaa durin ci lor masoo ju ko laaloon démb naa yàlla nee na ka saalika naka noonu suy na lees rafetale lil musrifina ñeel way ëppal ña maakaanoon la ñu nekkoon yaxmaloon na di ko def wala xad walaay dëgg laa xalak naa alak nanu xuróona ay giir yu dul jeex xar nan baada xar min min xablikum ci la yoon jëkk yéen waa Makka lama zalamoo ba ñu tooñee ci bokkaale ak jaawam dikkat leen dikkaloon na leen rusulum seeni ndaw ñu lànk bil bàyyi naa ci ci ay tegtal wa maa kaanoo nekkuñu li yoomi noo ngir nañu gëm yàlla nee na te saalika naka noonu mag si leen yi fexe ba léegi xaw ma nit na mujrimi na ñu jomloo jaamu yàlla sama topp jaal naa comme yéen waa Makka nu def leen xalaa'ifa ngeen wuutu ñooñu bañ a nekk ay xalifa xanaa def ay xalfun xalaa'ifa qul hun addaa'u salaata wa tabawu sahawaat jamoo xalifatin fil ardi aha ci suuf si ci àdduna bi min baadihim te gannaaw seen li nam sura ngir nu seet nun yàlla kayfa taamaluna naka ngeen di liggéeyee naka ngeen di jëfe wi saatulee buñ jàngee ayat naa suñuy kiimaan alañ ci ñoom bàyyi naa seen yu di leer xaala wax la si na ñi nga xam ne laa yar dina yaakaaruñu li xaana dañoo yaakaar ni dekki du am ulamaaw usul dañoo wax ne ñett yi moom buñ ko weddee rek su ko defee nag ah ah diine dootul am bu ñu weddee kenn ku yàlla weddi nubuwatu Muhammad yonent bi yonent bi weddi dekki ulama wusul nañu ñett ñi buñ ko weddee rek jeex na saxal ñett ñi nag moo di diine it yi indir bil bi quran ci ay jàng ñun yonente bi indi yeneeni jàng bi quran yeneeni jàng xayri asa yu dul yii ngay wax bis bu nekk sàppi nanu aw badilu wala nga wecc ko ko boog remplacer ko indi leneen xul waxal tontu maa yàkkoon a yellu lii ñeel ma anu badiloo ma bàyyi ko fi wax leneen ma di ko remplacer min tilqaay nafsi ci sama bopp min xibali naf ci sama bopp sama coobareel bopp ina tàgbi man déet may topp illaa maa yonde rek liñ ma déey li ñu wax yu ilay ci man nii naka man yonent ah axaafu ragal naa ah ah mbugal naa ragal naa asaaba yow min mbugalu bis ca kanam asay min bu rëy nga dellu ca gannaaw nag ne in asaytu ndem mooy naa rabbi sama borom xul waxal ne law saa donte neexoon na laaw yàlla maa talatoo duma ko jàng alaykum ci seen kaw nopp wala adraakum duma ko jàngale it duma ko xamle bu neexoon yàlla duma ko jàng duma ko jàngale wala adraakum duma ko xamle nee na faqad labitu yeewu leen ni sax naa fiikum ci yéen umrun ñeent fukki at ak dund min xabli yi la jëkk wàccub alxuraan maa ngi fi alxuraan maa ngi fi jiitu ñeent fukki at musu leen a dégg ma wax dara lu ko nuru waaw yéen afalaa tanqiluuna loolu leen tere xel seet leen loolu yi vraiment naa si la mu ko gën a tooñ ni man te nga xam ne ektara fort na kasiban aw fen ala laay di ko teg yàlla aw ka zaba ba mu dëkkee weddi aw ka zaba ba mu dëkkee weddi bi ayaatiin ci alxuraan yàlla inna woo luy dëgg tey dëgg laa yuxliwu du texe mukk mu jërimoo nañu joomloo jaamu yàlla wa yaabudoo na ñuy jaam min doonillaahi lu dul yàlla maa loo xam ne laa yulu munul leen a lor a yanfa'u xayra man laa yanfa'u nafsahu wa laa yanfa'u mun leen a jëriñ dara wa yaquluuna ñuy wax xaawlaay ñii ñu jaamu sufaaw naa ñoomi ram ëllëg inda laay fa yàlla bis bu yàlla taxawee kattanam ñi daañu taxaw rabb leen yàlla rammoo nii itam ñu ramm inda laay xul waxal ne atumne doona ndax da ngeen di xamal boog laa yàlla bi maa ci loo xam ne laa yàlla mu xamu ko yéen di li ngeen wax yàlla xamu ko fi samaawaati ci asamaan yi wala fi la xamu ko ci suuf yi xaw ma fu ngeen ko jële waaye loolu doona yàlla xamu ko moom subhaanahu tudd naa seetlu yàlla wa taala mat na jàng amaa yusrikoon yàlla wuute nag li ngeen di bokkaale wa maa kaana nekkul naasu nit ñi illaa ummatan rek di xeet waaye des na wuti benn ala diinin waahidin te muy diini lislaam la commencé ci aadama ba nuuhun jamono yonte yàlla nuuhun lañ jëkk a jaamu xiram am ñu ni jamono ibrahima ba ci hamrin ba ci homar ibnu laxay ah bu ko defee foofu lañ jaamoo xiram la ko jëkk lañ doon jaamu kenn ku yàlla ki faxtalafu foofu lañ commencé wuute wala wala kalimatun bur konteeg baat sabaxat bu jiitu min rabbika ci sa borom yéex a andi mbugal gi loolu laajte la xulliyaatees bay noom seen diggante fii maa ci la nga xam ne lépp loo xam ne yaxtalifu na doon ngeen wuute fii ci la ngeen doon wuute min amri diini ci mbirum diine wa yaquluuna ñu wax ñoom waa makka law laa lu tere um si la ñu wàccee ayatun kiimaan alla ci yonente gëree mu saaliwu ga wala yëpp Muusa wa wala ni Ise daan def di dekkal ku dee min rabbi bàyyi ko ca borom comme niñ ko joxe woon yonent yi waxul nee na bu buñ ko waxee waxul waxal ni innamal xaybu wala faddu amagul yàlla xam dana ko indi wala du ko indi fantasiru muñ leen rek indi naka man yonent minal muntasirina bokk naa ca way muñ ña maakum ànd ak yéen isa saqnaa ndem mosal nanu naasa yéefari makka rahmatan ab taw bu tooy xëpp ak naataange min baadi daraa gannaaw ba nga xamante ni dañoo ñàkk dañoo bekkoor amuñu ndox masatum bekkoor boo xam ne laaloon na leen isan am konte lu mu fekk lawum ñeel la leen makkarum pexe fayatina ci sunu alxuraan bi ñu ko yoreetaan xul waxal ni allahu buur yàlla waxal ni yàlla asraw moo gaaw makkaram dogal yàlla du pexe day dogal inna rusulana sunu ndaw yi nga xam ne dañuy garde sunu yonne sunu malaayika yi garde sunu malaayika yi nga xam ne dañuy waxtu moom la jublu ci rusulana ah wax na ko ca saaru la naam xafisa ko ñi nga xam ne da xafasatan ñi nga xam ne dañuy waxtu doomu aadama ak ñi nga xam ne dañuy waxtu lu doomu aadama def ñu bind ko doomu aadama bu nekk am na juróom-ñeenti malaayika yu lay garde boo tëddee nelaw ñu lay garde cër bu nekk ñu toŋ cee garde boo tëddee nelaw boo amul woon lu lay garde sa bakkan yooyu na wëttu wëttooral da ngay fekk melantaan yu dugg ci gunóor yi ak mbóot yi dafa am lu koy garde ba nekk yàlla def ci bunt bi gaas boo xam ne bi ku nu yëmm rek wëlbatiku
waaye ñoom waaye ñoom seen yoon nekk ci jëf ji nga jëf.
déedéet ok jëf bu yaa ñoom du tey ñu dina gàdd rek bu ñu gën di leen gàdd.
ah daañu ko bind nag dara du rëcc وإن moo moo moo tax mu تبصروا xamoo la ci tëkku la tëkku la inna rusulana yaktubuuna li nga doon wax ak noonu dañ koy bind dañ koy bind dañ koy bind dañ koy bind moo tax ñooñu mat nañoo rus ah mat nañoo rus mat nañoo rus mat nañoo rus mat nañoo rus وإن تبدوا yekk turóona maatam kuróona la nga xam ni moom ngeen di fexe nee na woo boon yàlla si nga xam ne yu sawirukum dana leen doxloo dana leen doxloo kii nag dafa àtte asulëf ci li ñu naan nit ñi dañ leen di forcé wala dañ leen di bàyyi ci seen sago gisuloo mu ni huwa lati yusawirukum moo leen di doxloo fil masir moo leen di doxloo kon nit ki demul demul ci sagoom jëful ci sagoom aha yàlla moom mi ngi koy doxloo aha mu mu dugal ci biir nag mu dugal ci biir nag jox lam xel wan nag ne la forcé wu ma la nga rey sam xar tuuri sa bërit ma ci àll ba fa yàpp la jox sa jabar aha ah li nga tóor nag dafa baaxul xel mim la jox ba mu la joxeem xel la tàggoog yow nga sox ko sa dugub togg la sa cere fa jox ba jox bàyyi ma xamee nga li baax ak li ba imma saakiran wa imma kaforan jàkka jaa ngi feneen a ngi attaaya jaa ngi njër maa ngi leneen a ngi imma saakiran wa imma kaforan wala ba ngaa fàttul fi nga xam ne foo dee nag fa la ñu lay yóbbu ndax nit ki bu dee fu ñu ko yóbbu fan la jàkka ja feefee nag mat naa baal xel waaw mat naa baal xel mu miin la nag mu miin la nag mat naa baal xel mu miin la nag بلا يلفايو waaw bala ñu laa yenu yóbbu la fa bala ñu laa yenu yóbbu la fa fekk daal dafa dem waaye dem fa jàkka ji ne ah mu kee kam tey la jëkk de
لا سنجباي
damay jëlaat yi. ndax loolu waaw moom yàlla xam nga daa fekk wala déet.
ah balaa xala rek oh moom yàlla la si ah balaa xala rek ñu ne naa taa yàlla jël jàmmalu bi sàmmil xeet oh moom yàlla la si mooy ka nga xam ni yusayrukum dana leen doxloo fi sayri moo leen di doxloo moo leen di doxloo ci jéeri ji ci dox wal baaroo géej gi ataay saa kuntum ba ngeen nekk fil fulki ca biir gaale wa jaree na ma ilti ma def iltifaat nag wa jaree na nag ah iltifaat anil xitaab aha wa jaree na nag bihin ah birihin yàlla nag dawal nag aw gelaw biim ci ñoom nag mu ànd ak gaale xam nga gelaw bu nee réehin rek gelawu musiba la bu ko jam woon nag gelawu yërmande la tay ba ca ñu teey oo faroo ñu bépp daa ci gelaw yi gaal gaa ngi dem na leen neexe jaataat daal di koy dikkal ci mbetteel réehun mu fat ma gelaw aasifun wuy riddi wa jaahu mu dikkal leen almawju duus min kulli makkaanin bërëb bu ne duus jóge fa wa sannoo ñu wóore ni annoom naka ñoom uyute peegees na biim ci ñoom ci alkande daaw ñu woondoo nag laa a yàlla muxlisina ñuy sellal diina diina jëllahoo ñeel yàlla ñaan gépp nag jox nañ ko yàlla boole wuñ ci kenn ne ko lay nan jënaa am jeetinaa giñ naa ni doonu musalee lan mi ne aasi ci ñuy gelaw ñuy tiit lan nag ko noona daanu nekk moos mi ne saatiri na bokk ca way wéetal ña fala na am jaam yàlla nee na ba ma leen musalee isa am kon ñu dem ca jéeri ja isa am kon te loom hum ñoom yëpp xoona ñuy tooñ ñuy sàkku fi lorlu ci adduna bi bi xëyri àq bi mu gën dëdd ñu dee bokkaale kii naan sama laar ba kii naan sama téere ba kii naan bàyyi diw laa tàggool kii naan sama béjjën ba yaayan naa su yéenu nit man ngelaw li innama baxyukum seenu tooñ xala anfusukum foofu la masala mi yem képp yaayan naa su yéenu nit innama baxyukum li ngeen di def lépp seen tooñ gépp allah anfusukum bay wàcc ci seen bopp yetu bopp la du wàcc mbagg boroom ah yaa naasu innama baxikum ala anfusikum muy ndiwaat nag geneen wax mattaalu ayaati yóbbalub adduna duniyaa ga di kees suma topp nag marjiukum seen delluwaay ilay naa jëmm ci nun fa nu nabikum nu wax leen ñu may kuntum la ngeen nekkoon tax ma doon a def yàlla nee na adduna noonu déglu leen ma wax leen na mu mel inamal masalul xayaati misaalum misaalum adduna duniya ka di gaaw a dem ka maay mi ngi mel ne ndox ansalnaahu yàlla nee na da ngeen xamul adduna nu mu mel mataalaa dunia innama almasalul xayaati dunia ni mu mel ka maay in ansalnaahu mi ne sa maay mu bàyyi ko asamaan ci niiri asamaan faxtalata mu jaxase bii ca sababu ndox ma bii ci sababu taw ba nabbaatu lorle gàncax ak suuf dafa fab gàncax bi jaxase ko taw bi mi naa ci gàncax yoo xam ne yaakul dana ko lekki naasu nit ña bu ñoree waleen aam ak juri kër ya mu ne kare bu nekkee mboog ataay saaxa sati ñu di ko def ba jàpp ardu suusa suxrufaa takkaayam la suxrufaa naataangeem ga ci gàncax nga xool suuf si mu ñuul kukk waaye nag nee na nag mu rafetal tóor tóor yi rafet wekki xob yi ñuul sànn jot ni ahluhaa ñoñ tool yi ñoñ gàncax gi annaw naka ñoom moos xaadiroona daañu góobi allahaa ci gàncax gi dana ñor ba ñu góobi xaadiroona daañu góobi daañu deq ji allahaa ñu yaakaar ne moos dana ñor bañu góob xam nga lu xew ak taaxaa ñëwal ko ba mu daataan ñor amru naa sunu mbir sunu dowal lay lan ca guddi aw naayar wala ca bëccëg mu maran fa jaal naa nu def ko asidan comme lu ñu góob bil manaajili ci ngóobaan dara nekkatu fa
ren de mat na neex na jël
xale ñuul kukk te ñu def woon ne daañu góobi kaan lam tax na kaaga ma nga dellu ca nabbaat ba kaan lam tax na mel na gàncax amu fi woon démb bil am si kaan lam tax na mel na gàncax amu fi woon bil am si gasaalika naka noonu mu fasir la ñuy faram fàccee ayaat ci kiimaan ya la xam ne ñeel nit aaya tafakkaroon wallaahu yàlla yaddoo toujours mi ngi leen di woo ila daari salaam yàlla fu mu toll mi ngi leen di woo jëmaleen ajjana wa yahdi mu deen jubal man yasa wa yahdi dina jubal man yasa ku ko neex ila siraatin ci yoon mustaqim tey nag dañuy tëb sumun ila siraatin ci yoon mustaqimin woo xam ne dafay jub ba ajjana li la si na ñeel na gaañu nga xam ne nag ahsano ba nu yeggee gi sumun sa ndox mi rafetal nañu al usna ajjana ja wa siyaadatun mu dolli leen mu dolli leen lan nga leen di dollee gis yàlla mu dolli leen walaa yara aqu nee na du ñu rujjoom xasaroon pënd rujjoom seen kanam ya wala siratun du jaage ni njàqare wala ka ñoom gaay asaabul jannati ñoom ñoom xaal doona way sax lañu fi ay càjjan wala si ne ña nga xam ne nag ah wala si ne ñooñu muy atati muy atati yële si ne asanu ña nga xam ne nag kase boo dañuy fàggu sayaati ñaaw téef ñooñu lu ñuy am gisaawu sayatin tayib ñaaw téef bi misla wa gisaawu sayatin sayatin wa taraqun dana leen muur sillatun toroxte maaloom de di ñeel leen min asimin ku leen di musal minallahi kurul yàlla du am kana ma ox seet daanaka woddees na leen woddees na wujjoom seen kanam we xittahum dogitu lëndëm mina leeli ci guddi gu dogitu lëndëm musliman mina leeli musliman boo xam ne ma nga lëndëm kuk ulayka ñooñu gaay asaabu naari ñooy waa sawara um ñoom xaalidoona way sax lañu fiiha ci sawara li la si na asanu dañu ko misaal jibril dafa toog ci bopp yonent bi mikaayil toog ci tànk yonent bi mooy ko la jibril na mikaayil loo misaale waa ji ak yonent bi ko yàlla yónnee ñi ñu ko yónnee woon te ñu lànk na muy demee mu ne ko mi ngi mel na buur bu tabax kër wut ca saal bu rëy rëy rëy rëy andi ca ñam yu dul jeex ak naan yu dul jeex yebal benn yebal as ndawam yebal ndawam ndawam bëkk néegam ne ko wool wool nit ñépp ñu ñëw ci kër gi lekk ci ñam yi naan ci ndox mi ku ñëw lekk ku ñëwul nag doo lekk mu ne ko ah buur bi mooy yàlla buur bi mooy yàlla kër gi mu tabax mooy lislaam saal bi mu ci def andi ci ñam yi nga xam ni moom la def ñam yi moo di àjjana ndaw li mu yebal muy woote ku ñëw lekk ku ñëwul da ngay fande wala nga biñe mooy yonent bi moo tax mu ne kullu ummati yadxuluna jannata ila man abba ina waskur fàttalikul yow ma naasiru bus bis buñ leen fangee jàmmiyaan mboole su ma topp naqulun wax la si na ñeel ñi nga xam ne asrakoo dañoo bokkaale ñuy bëgg a dem nag ñëpp la jënd ñu nasab ko nag ci alsimo makkaanakum ñu bëgg a dem ñu leen makkaanakum makkaanakum makkaanakum makkaanakum mooy wax ju ñu pressé wax ju ñu gaawe da nga ànd ak nit mu jiitu la nga topp ci gannaawam gis muy bëgg a dëgg jaan doo ko ni wattul yaa ngi dëgg jaan ji da ngay jékki-jékki rek ne jaan jaan jaan waaw mooy taxaw
ah moo gën a gaaw waaw waaw waaw wala wate bi bëgg a daal ci sa kaw yow gisoo ko am koo gis mu la wate bi wate bi wate bi du fi jekki naan la day yéex moo tax yàlla ne aha makaanakum makaanakum seen béréb antum yéen wa surakaawam nga seen yàlla yi fa sa yàlla naan nu jeqee nag baynoom seen diggante seen diggante jullit ñi léegi nag teqali koo jot na woon tasul yow ma ayyuhal mujrimoon saaru yaasin allama ahad ilaykum yaa bani aadama ah wa qaala wax na surakaawam seen way bokkaale nun kat maa kuntum nekkuleen woon taabudoona ngeen di jaamu iyaanaa fi nun fa kafaa doy na sayidan seede bi lay ci yàlla bay naa suñ diggante wa bay nakum ak yéen jaamu wule nu woon de in innaa ngay wax innaa nekkum kunnaa nekk nanu la xaafilana nuy sàggan yéegu nu ko def ngeen nu jaamoo an ibadatikum walub seenub jaamu nun xamunu lu ngeen doon jaamu hunaalika foofale ci bis boobee tabloo lay feeñe tabloo lay mose kullu nafsin bépp bakkan maa aslabat la mu jiitaloon wóoru doo ñu delloo leen ila lay ci yàlla mawlaam kay seen kilifa alaaxa kay kilifa gu sax wa dalle réer maa la nga xam ne kaanoon nekkoon nañu yeftaroona doon ko fortu anhum wocc leen fa xul waxal ne man ana kan yarsuqukum doon leen wërsëgal mi ne sàmmaay wërsëgu taw wuy bàyyi koo asamaan wala leen wërsëgu gàncax wuy bàyyi koo ci suuf am man ana kan yamliku doon moom sama dégg ana ko moom dégg wala absaara ana ko moom gis wa man ana kan yaxruju di génnee alxaya kuy dund minal mayiti ci lu dee wa yuxriju mu génne mayta lu dee min la hay ci lu dund wa man ana kan yudabbiru muy settantal al amra mbir ya buñ ne boo leen ko laajee duñu amul lay fa sa yaquluna xal set nañoo tontoo ni dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kooku allahu buñ la nee yàlla nag fooxul waxa ne kon nag afalaa tattaxoona lu teye nag ngeen lagal ko fa saalikum kooku la seen allah mooy yàlla rabbukum moo leen yar alxaqu mooy dëgg allahu rabbukumul xaq allahu rabbukumul xaq aha waaw gannaaw loolooy dëgg nag fa maa saa baadal xaq lu ne ca gannaaw dëgg ila dalaal réer rek aha la ca gannaaw dëgg moom la Muxtaar Sekk naan la ca gannaaw dëgg mu ngi noonu fa am na kësëre woon lu ngeen nekkee nag di soppandeku di fen te saalika naka noonu xaqat la yee kalimatu rabbika sa baati borom muy laam laa na jaanama alal la si ne si ñi nga xam ne fasaxoo kéefër nañ dañoo bëtt diine bëtt nañu làng gi ñooñu dañoo bëtt làng gi muy baatub laam laa na jaanama antum annahum naka ñoom laa yoon nee na gëmuñu ba dee te yaam nee na duñu gëm mukk xul waxal xal min surakaakum ndax nekk na ci seen yàlla yi ñi ngeen di bokkaaleen man man koo xam ne yëpp doo moo sos xalaxa bind ba su ma yëgidoo te moo koy delloo waaye fa andi tóoba ko na gannaaw loolu amul na ngeen nekk di sos ay fen xul waxal ni xal min surakaakum ndax nekk na ci seen yàlla yi man koo xam ne yahdi dafay jubal nit ilal àq jëme ko ci dëgg te moom mu jub xul waxal ne allahu yàlla yahdi mooy jubal li làqi jëma ci dëgg afa man ndax ki nga xam ni yahdi day juble ila làqi jëma ci dëgg àq moo gën a yey an ya tabe ñu topp ko am man wala ñu topp ki nga xam ne laa yahdi maa ne du jubal kenn tomba koy maas kanam ngaa fay sadda la kaa ngi wax jinne jomman nduuma aman laa yahdi wala ki nga xam ne du jubal kenn ilaan yu da ndereen moom ci boppam sax dañ koo jubal fama lakum lu leen dal kay fa tànku moo ne ba ngeen di atte yi atte yi ñaaw wa ma yettabi toppul ak seroom lu gën a bari ci ñoom ci jaamu xiram ila zannan ndarega njarajaxu njort rek ina sànna ndiki njort la yox ne di jëriñ sa yan dara min al xaq ca lay dëgg ina laay ni ki buur yàlla alimun xam na bi maa yëpp aloona li ngeen jëf te dana leen ko fay sadaqallahu al-azim أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وما كان أن يكون آثار القرآن في القرآن أن يفترى من المفرط بيدك القرآن كي nga bàyyi ko ci yàlla muy lu ñu fort ñu dooni lay ñu bàyyi ko ci kenn ku dul yàlla walakin lu fi ne tasdiqa la si dëggal na bay na yàlla yi téere yi ko jëkkoon a wàcc ñu tawreet ak linjiil ñu ñoo ne woon ci kanamam wa tafsir al kitaab ah te itam mu faram fàccee téere bi tabayyana maa katabahu laahu li yàlla atte ci sariya yëpp moo ko faram fàccee laaray ba kon nag déet lu mat a sikk ku sikkit sikk nga lu mut a sikk fii ci alxuraan ni kenn warul sikk ni min rabbil aalamiina mi nga bàyyi ko ci borom bind fii borom bind bi nag du kenn ku dul yàlla am bàyyil fen te wax dëgg bàyyil sikk moom am ji palaasu bal la tooge yàqoolo na dañuy wax naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iftiraaw da koo fortu daa fortu alxuraan xul waxal ni faatu kon nag nañu dem forti nañu andi bi suratin aw saar mislihi wenn saar ci saar yi nañu seet wuñ ci gën a yab ñu andi saar wu tolloog moom te itam waddu woo nañu woo man di tattaun ku ñu mën a woo rek nañ la woo ñun dooni laay kurul yàlla yàlla rek ci dul bokk keneen kurul yàlla rek duñ la mënee woo nañ la woo in kuntum dem ne ngeen saadiqina di wax dëgg aha bal kasaboo ñoom ñu ngi dëkkee weddi bi naa ci loo xam ne lam yi wiitoo seen xam-xam warul seen xam-xam peegul li ilmi ci xam ko ndax xam-xam am kenn amu ci ilmul ihaat ilmul ihaatati xam ko ba mu jeex takk wër ci ni ndom ba di wër a ndigg nga xame ko noonu am bi ma la muy too bi ilmihi am wala maa yaatin te itam dikkalu leen taawiloo taawiloo taawilam ak mujjam xam ni nii la dara mën a tukkee topp nga xam ni taawil bi nee na net kenn du ci indi lu doolee ko ci dégg ko ka saalika naka noonu kal zaba la dëkkee weddi la si na ña nga xam ne min xablin dëkkoon nañu leen weddi woon nañu seeni ndaw fansur seetal kayfa kaana naka nekk aaxibatu saalimiina mujjug ña doon weddi ña weddi woon Huut ak ña weddi woon Nuuh nag aha waa Haat ya weddi woon ak ñëpp Firawna ak ñëpp seetal seenu mujj kenn ku ne xalaatal nañu mujjoo wa minum tukkee na ci ñoom waa Makka man koo xam ne yow minu gëm na bii ci alquran wa minum tukkee na ci ñoom waa Makka man koo xam ne laa yow minu du gëm bii ci alquran wa rabbuka sa borom alamu xammee na bil mufsidina ñiy yàq nit ñi wayn kat sa booka ndam weddi nañ la waxul waxal ni lii ñeel na ma xamal yi sama jëf ju baax la kum diinu kum wal yëddi